Heavy Waves.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 takk boppam buum ci baat ci plafond bi dal di faat bakkanam kanam gannaaw loolu nag enquête yi li mu njëkk wane mooy li ñu njort ne waa ji li tax mu xaru dal di faat bakkanam tefa amoon ay bor yu bare bare bare dëgg dëgg jarul xaru nag ndax ci dolli boole ci am ay dossier de justice yoo xam ni bari na goo xam ne maara deetaali ma ne ba léegi jarul xaru nag soxna waa ji ko liee woon moom daal moo toog ab diir gisul waa ji naka noonu mu dem xool bunt ne néegam gis mu tëju ba noppi benn xet di génne ci biir néeg bi boo xam ni dal di na koy jaaxal ci la dal alerte alerter gendarmerie ma ne xaru dal du solution moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona la wax sénégalais bii na li mu def te Genève romb na doy waar ndax dafa rey ab corom boo xam ne ab italien la ba noppi dal di daw dugg ci senegal kay waa ji nee ñu mu ngi wuyoo ci turu deesaw moom nag teg nañ ko loxo fii nii ci ndakaaru gannaaw sept boo xam ne sawaay may la defoon ñu ko doon wër section de recherche bu kolobaan moo def lu ni mel deesaw nag le 11 avril 2016 la defoon njombe lu ni mel ca Suisse Genève dal di jàpp corom italien bu jigéen boobu dal di koy dóor ay barre de fer ba mu jaare fa ñàkk bakkanam corom boobu nee ñu ab étudiante la woon amoon ñaar fukki at ak juróom-ñett te saw bi mu defee li muy def ba noppi yoonu suuf gi la jaar ba dugg ci Sénégal sawaay nag bi mu duggee Sénégal piste yëpp la dal di brouillé ndax ñetti identité la amoon waa ji dëgg mooy Desaw waaye ca Genève Deba fa tuddoon ca Italie mu tudd fa Esaw ndax Desaw laata moo dem Genève Italie la jaaroon gannaaw njombe loolu nag justice bu Suisse moom bàyyiwul ndax en nañ ñaari policier ñu jóge Suisse ñëw Sénégal ànd ak section de recherche bu Colobane doon def ay lanket ngir teg waa ji loxo waaye ba Covid bi ñëwee la ñaari policier yooyu dellu ca Suisse ba gisuñu woon deesaw ma waxaat ko deesaw pis yépp la brouillé ndax bi mu ñëwee Sénégal këram gi nekkoon ca kër Mbay Faal nga xam ne fa la yaayam dëkkoon def ko jaay naka noonu ci la yaayam delloo ca Mboro dal di fay installé wu deesaw nag li ko daane ba ñu teg ko loxo mooy ab opération de vente de voiture la enquêteur yi dal di découvrir gannaaw ay renseignement yu wóor yu leen xamal ni deesaw mu ngi ca biir ci lañ ko tegalee ab ndëgg sërëx mel ni kuy jënd ay oto ci moom daal di fixé ak moom rendez ma ne xam nga rek booy daanu doo gis dara rendez-vous boobu ñu fixé woon ak moom nag ña ngi ko fixé woon ak moom ca mbaaw teesaw bi mu ñëwee yaakaar ne tey affaire baax naa oto lay jaay gaa nekkoon niip daal di koy teg loxo gaa yi dañoo xereñ de gannaaw bi ñu ko tegee loxo teesaw daal di nay nangu lépp luñ ko doon tuumaal bi ko justice bu Suisse yegee nag ñoom li ñu bëggoon mooy ñu indi teesaw ca Suisse ngir ñu àttee ko fa waaye dañoo lank ba tëdd ci naaj bi ne dee saw ci réew mii lañu koy attee <laughs> ma fu lay jaay Dakar de jël suñu doomu réew yóbbu ci seen dëkk ngeen attee ko fu lay jaay daqaar laa wax mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz